mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di gërëm bu baax euh, di leen euh, sant euh, ci seetaan gi ngeen di seetaan solution info TV di leen gërëm bu baax ci teewlu bi ak seetaan bi tey ñu dellu siwaat ci ndimbalu suñu borom ak kattanam di sant yàlla bu baax ci bisu 4 avril 1960 1900 non non 4 avril 2024 way 4 avril 2024 hein waaw tey jii 64 ans après bi ñu amee indépendance nga xam ne yàlla rek mooy buur président basiru Diomaye fay doon suñ président 44 ans euh, bi ne Diomaye 44 euh, ans mu nekk président de la République du Sénégal après 64 ans d'indépendance sama xel dem ci 4 4 44 ah mais bii 4 4 64 Diomaye 4 4 64. kon le chiffre 4 moom jig na jomaay quoi surtout que les élections la vingt 24 ah yooyu yëpp ay signes la yoo xam ne jomaay dafa mel ne yàlla moo ñu ko tànnal quoi dafa mel na li ma doon wax krok mooy lépp dafa daje rek pour mu nekk président maanaam nit du des destin maanaam bëgg bëgg sénégal yi la mais bëgg-bëggu sunu borom la le fekk que nekk le président de la République du Sénégal nga xool 44 ans xool 64 Sénégal biñ naan ñi ngi décollé quoi 4 indép 4 avril bi ñu gën a marqué mi ngi am le 4 avril maanaam 4 avril cent quarant 444 maanaam 4444 comme li Idriss Seck doon wax en 2004 tey ñu ñëw 20 ans après ñu am président bu am quarant 44 ans yooyu yëpp ay misaal la kon quarant 4444 4464 ah 44 ans wu Diomaye le chiffre 4 4 avril. Hmm? mu nekk suñ cinquième président nga xool ni après 4 bi moom moo ci tegu le chiffre 4 Diomaye kon yàlla na ko jik yàlla na ko jik mais aussi yàlla na mottali ak sagoom mais aussi yàlla na jig réew mi chronique bi nag tey ci bisu 4 avril bi yàlla tamit indi ci beneen mbir mooy ñu am président boo xam ne day prôner la souveraineté souverainisme maanaam Sénégal bu moom boppam la Youssou Ndour doon way ci 444 indépendant euh, euh, mooy moom sa bopp ah, mën a demal sa bopp xam fi nga jëm nga xool ci waay woowu te boo xoolee way wi li ci Youssou Ndour di way ci indépendance ak euh, li jëm ci souveraineté ak moom sa bopp jomaay bi mu waxeek ñun ci discours am dafa mel ne foofu la ñu woow ñun ñëpp mooy dina respecté ñëpp waaye itam bëgg nañ ñu respecté ñu loolu mi ngi koy wax ci digganteeg ñin séqal àddina bi te ñun ñëpp ñu jàpp ni après 64 ans mosuñu am indépendance rate nañ ko ci 44 44 boobu jàppoon na ni avec l' de Wade bés bees bi ak le discours de Idrissa Seck 400 44 44 boobu yaakaar am mais 20 ans après day am un dina d'inachevé tey jii ñu am un président boo xam ne 44 ans mu ñëw nekk président loolu. ak rupture ak la fait que ñoom ñu ñëw ne rupture la ñu bëgg la fait ñëw ñu ne ñoom beneen Sénégal lañ bëgg Sénégal bu moom boppam Sénégal bu gën boppam mais Sénégal bu mën boppam parce que damay faral di wax naan gëm sa bopp ak mën sa bopp dafa wute boo gëmee sa bopp te mënoo sa bopp da ngay sonn mais balaa ngay gëm sa bopp da ngay mën sa bopp loolu nag mooy souverainisme mais loolu du rek ay wax mais lu ñuy jëf la. mais aussi processus la bu yàgg nekkul rek loo xam ne da nga ñëw rek wax ko tey mu egg tey nga mottali ko tey mu li tey rupture lu jafe ci réew mi la mën nga ko wax ni mais lu jafe ci réew mi la anti système lu jafe ci réew mi la parce que aussi depuis ñu am indépendance daa am loo xam ne réew mi da koy doxe mooy daf ci am loo xam ne samp na fi ay reenam jëmbat nañ ko mais aussi dëgër na dëgër na mooy li fi jomaay bëgg jële mooy corruption mooy guerre guerre mooy baasu lépp lu yàq réew bu nu waxee ci mbay mi ak intermédiaires yi corruption mooy li ko waral mu ne da leen ni dindi mu doon ay lobby yi am doole yoo xam ne tey jii ni ñi poñee état ñooñu xëy wi wi weñ seen loxo loolu doonu lu yomb li jëm ci ñi sàcc alalu réew mi ak les prête-noms jomaay wax ci mu doon lu delika loo xam ne tey jii pour mu lijjanti ko day jafe parce que Sénégal dañuy jaawale ñaar mais reddition des comptes ak règlement de compte mën nga di def reddition des comptes am noo koy defee nit ñi jàpp ni règlement de comptes la loolu tax mën nga ko def pour askan wi mais mun noo wëlbatiku ci sa kaw parce que askan dañuy jàpp ni ñëwoo pour leeral mais danga ñëw pour defante loolu tax dafa laaj communication li jëm ci dundunu sénégalais yi nan lay def ba wàññi ko le train de vie de l'État nan lay def boo wàññi ko loolu lépp nag ku ko bëgg a lijjanti ci réew mi te jomaay loolu la bëgg lijjanti mooy il faut nga am fit am courage mais am sañ-sañu mën a jàkkaarloog les lobby parce que boo xoolee même tey jii ci commerçant yi dafa am lobby commerçant bu dëgër ay organisation commerçant yu dëgër ci réew mi poñe commerce réew mi tey jii ñooñu ku mënul wax ak ñoom ba seen nopp gëmloo leen dara pour nga jële lool ci ñoom day jafe kon lobby boobu il faut nga daaneel ko pour mën a wàññi njëg beneen bi ci topp mooy mbay mi surtout les intermédiaires ñooñ dañoo yàgg ci réew mi régime bu mës a ñëw taxaw nga pour jële leen fi mais ba tey ji ñi ngi fi kon du jomaay rek moo njëkk a ñëw wax loolu waxu fii lu bees mais la volonté politique moom manqué est-ce que nag du tey jii jomaay ginnaaw wax ji volonté bi la leen war a ëpp ak sañ-sañ bi te lu tax mu mën a réussir loolu du xool li sénégalais yi bëgg mu koy def day xool li gën ci sénégalais yi mu koy def xam ne nit mun nga def li mu bëgg fekk gënul ci réew mi nit mën nga def li mu bëgg fekk li li ngay def gënul mais li gën mën nga koy def fekk nit ñi bëgguñu ko ñaar moo am mooy ngay def li gën nit ñi bëgguñu ko ngay def li nit ñi bëgg fekk gënul loolu daal la gestion d'un état ak la réalité du pouvoir dafa xaw a jafe surtout ñu nekk ci réew moo xam ne daa am lu ñu tàmmal mooy ñun corruption dafa dem ban banaliser ko jàpp ne gertlu normal la tey ji boo doxee ci tali bi takk der yi ak borom oto yi doxalin wi ñu dafa dem ba nekk une règle maanaam on a pris les mauvaises habitudes dem ba def ko raison sunu réew maanaam dafay am loo xam day bon baaxul mais danoo dem ba gëmal nu ñi lii sax moom moo mën mënta ñàkk de waa lii de jënd ci guro lii de lii nii mais parce que tey ji corruption ku ko bëgg a xeex ci réew mi mais tali bi ngay njëkk lijjanti takk der yeeg chauffeur yi mais loolu ngay njëkk lijjanti te loolu lijjanti ko du yomb nguur gu mësa ñëw taxaw nga ci. mais tey ji lan la ñu jural parce que corruption pour mu am ñaar ñoo koy nangu le corrompu et le corrupteur ñoom ñooy nangu corruption te Sénégal fii mooy ki ñuy corrompre ak ki corrompre yépp ñoom danoo jàpp ne corruption lu jaaru la danoo jàpp lu jaaru la te boo déggoo discours yu yi defagum discours yooyu ñett yépp dafa gën a taxaw ci corruption kon lu ko ñor la pour mu xeex ko lu ko ñor la pour mu jële ko fi waaye nag wala fi dan ne weñ gi ma nga bañe ca mbañe xaan ga maanaam jàngoro ji ne ji corruption ci réew mi dafa mel na cancer te ne ku régler corruption régler yépp créer nañ fi lu ne ci àddina nag jomaay nee na léegi dinañ fexe ba ay rapport OFNAC di génn ñu koy publier rapport Cour des comptes di génn ñu koy publier pour que ñu xam yooyu la rapport am mais rapport yooyu bu xasee ba génn ñu publier ko publier bi doyul mais suivi bi mooy ñi ñu épinglé tudd leen ci ñooñu li yoon war a def na ko def parce que régime yi fi jaar yépp mooy dañuy def ay rapport def li ñu war a def yépp mais la problème mooy day am ñu ci teg seeni conc wala ñi ci am ay intérêt wala corruption dugg ci loolu da ku xeex corruption xeex nga lépp ji nga fii metti foofu la jomaay dugal loxoom waaye ci biir chronique bi dama ci wax naan jomaay sonko entre vouloir et pouvoir xam ne vouloir mooy li nga bëgg mais pouvoir mooy li nga mën mbir mën nga ko bëgg te doo ko mën loolu nag pour jomaay réussir ko ba réew mi corruption juge fi renforcer les entreprises privées loolu day fekk nga déglu patrimoine bi parce que patronat bi aussi c'est un lobby très fort comme organisation commerciale yi organisation paysannes yi yooyu danoo yàgg ci réew mi am na ñuy doxee dem ba làgg ci tey jii nag ñooñu ku leen bëgg a jubbanti te dañuy faral di wax naan ci baatu wolof maanaam bant bu tooyee dina neex a jubbanti waaye bu nee ba dëgër boo ko jubbantee day damm wala boog bu damul sa loxo damm loolu tax nguuru jomaay gi du yomb ci li mu wax loolu la ñëpp bëgg de mais gëm naa ni Senghor waxoon na ko gëm naa ni abdu Diouf waxoon na ko gëmoon naa ni Lay Wade waxoon na ko gëm naa ni Senghor Macky waxoon na ko waaye lan moo leen jëlee ci seen combat yooyu ñu dem ba benn jamono ñu toqi dem ba benn jamono ñu mel ni kii seetaan dem ba benn jamono ñu ne daal nan bàyyi nii mbir mi parce que bu dee ay corps de contrôle créé nañ ko fi of nag liggéey bu noobul la yor liggéey bu taxaw mais li tax mbir mi graaw da dem ba dans l'exercice du si say biir ay nit yow yi nga fal ay corps de contrôle épinglé leen xam na tey ji corps de contrôle lu tax mu compliqué maanaam da ngay wër sàcc di ko wër di ko di ko wër di ko wër di wër ba jàpp sàcc bi naka da sàcc bi sa waay la naka da sàcc bi ci ñi nga fal la bokk naka da sàcc bi bokk na ci ñi nga doon wax naan rupture leen gëm ñoom tax mun na am ñoo daan toog ci télé yi bi ñuy nekk opposition di la wax ni mbir yi dafa war a set dafa war a jub danoo war a jubal léegi sa waajoon noo koy def loolu tax li naan sentiment bu ko jëmaay am état d'âme bu mu ko am te aussi bu mu yor benn mandat cinq kenn mënu ci def lépp de lépp xaju ci waaye ci biir cinq yooyu bu mu ci nekk di liggéey pour am deuxième mandat ji nga Khalifa Ababacar Sall de 2009 à 2014 boo gisee mu def liggéeyi ndakaaru ba ndakaaru yëpp gëm ko Khalifa bi mu ñëwee utul deuxième mandat ndakaaru dafa ñëw rek pour liggéeyoon ndakaaru tey jii boo déggee ñu naan la xalifa la bilan à ndakaar mooy nit la ku daan politique te utul deuxième mandat ji nga jomaay mii bu bëggee réussir li mu sumb ci réew mi ak li mu naal yépp rawatina xeex corruption ak ger jàkkaarloog les lobby très xeex ak ñoom. jubbanti réew mi ci cinq ans de réformer les institutions justice bi jaar na mu waroon a jaar pour mu réussir ko du bëgg deuxième mandat parce que lobby yooyu mu songu lobby yooyu mu songu ci prête noobeeg yooyu eh, lu mu jaral jomaay pour ñoom ñu teg ci yoon ñoom dalañ koy jaral pour ñu yàq nguuram billaahi da koy jaral pour nguuru jomaay gi sax du yegg da leen koy jaral jomaay du am résultat dana leen jaral ñu xeex ko ba mu échec loolooy lobby c'est des gens très forts tapis dans l'ombre kenn xamul leen looloo tax ci chronique bi ma ne jomaay Sonko entre vouloir et pouvoir mën nga bëgg dara mais est-ce que di nga ko mën parce que le cas de Barack Obama aux États-Unis bari na lu mu diggoon américains yi bi mu faloo def na leen naka de la le pouvoir <laughs> nekkul ni nekkul ci mbedd bi quoi leneen la loolu tam bari loolu Obama bëggoon malgré que bilan bi daf mujj ko def parce que dafa fekk ci biir yoo xam ne kenn xam mu doon te Sénégal gi nag la gën a grave daf ci am ay ngand ñoo xam ne nguur gu fi ñëw am nga am nga volonté def nga ay promesse teg mais dañuy wiñaar sa loxo xeex ak yow looloo tax may sàkku ci peuple bi jomaay li mu bëgg moom rek mënu ko sénégalais dañ ko ciy jàppale xam mooy jàppale ci nan bu nu woowee kenn ci yoon wala ñu lijjanti kenn wala mu taxaw pour bëreek ñoom sénégalais yi jàpp ni liggéeyam lay def ndaxte mbir nag balaa muy neex day metti mais bu amul la soutien des sénégalais ak lobby yi nekk suñu justice lobby yi nekk ci patronat bi organisation paysanne ak ñoom it seen du réussir parce que da lay tegal ay ndëgg sërëx yoo xam ni yooyu pour nga jéggi ko day jafe te nit ku ne da ngay am lu la doy dañ ji nga tey ji bu neexoon les commerçants dinañ def le tol sorte que tey jii inflation day am ci réew mi dund gi dinañ ko seeral ba nga day taali te bu boobaa loolu lépp ci kaw la kan kanamu kan lay daanu ci nguur gi parce que Abdoulaye Wade bu mu fi jugee mais dund gi yokkoon na benn jamono ba nit ñi tit man recevoir naa dalal naa nit dinaa ko mës a invité du ma turam tey fii bi Abdoulaye Wade daanoo mu fekkoon ma ci benn média ma invité ko mu ne commerçant yi bokk na ci ñi daaneel Abdoulaye Wade mooy lobby organisation commerçant jël dund gi suukar si lépp nëbb ko te bu dee nii la demande et supérieur à l'offre dund gi day yokk far force maanaam fépp fu pénurie am rek séerété day dugg inflation day am fépp fu rareté am rek ci produit rek yokk day am yokk googu ci kaw nguur lay daanu surtout nguur gu bees ah ñii de seen nguur gi teel naa naqadi nguur gi nii mi ngi mel Macky bi mu faloo rek génnee billet billet 500 ya nit ñi naan réew mi daa Macky loolu tax les premières impressions na doon ay impression yu rafet kon ngu jamaay mi ñun nañ jàpp ni ñun mooy président bi njëkk a falal suñu bopp kon bu échecgee ñoo échec bu réussir ñoo réussir te bu boobaa loolu ñi ko ci njëkk dimbali sénégalais yi la. mais ñi mu àndal falu ñu bokk programme bokk un projet coalition Diomaye mais aussi le projet de Pastef looloo tax ñi rafetlu taxawaay Ousmane Sonko ci weru wetu Bassirou Diomaye Faye parce que nag yambar fanaanoo yi ak dóorkat yi ngay gis ci réew mi ak lobby am doole yépp teewaayu Ousmane sonk ci wetu Diomaye neexu leen de du leen neex mukk ci àddina parce que Ousmane gars yi ñemewuñ ko di nga bari na yambar yi nga daan dégg ci média yi ñi wax naan noo warul nekk ci wetam da koy def ombrage da koy day tax jomaay du liggéey kenn du gis jomaay jomaay soxlawul ku ko gis ay jëfam lan soxla mu feeñ jomaay feeñ amul solo mel ne ay jëfam di feeñ ba sénégalais yëg ni nguuram gii de yéex na fee am parce que kilifa opposition say kaddu moo lay siwal parce que opposition wax rek nga mën mais mënoo jëf mais mais réew njiitu réew say jëf moo lay feeñal moo tax ñu naan njiitu réew bu amee bilan bu baax jarul muy campagne ndaxte bilan bi doy na campagne kon jomaay feeñ wala mu fees amul solo na liggéey rek ci jàppaleeg Ousmane Sonko sur la coordination du gouvernement parce que nag gars yi yabuñu Sonko loolu tax teewaayu Sonko ci wetu jomaay te Sonko nag moo porté le projet ba mu toll fi mu tollu mu jaral ko lu ne wala fi nee nan wax ko wax ma bu nee la ni diw lu mu am neel lu mu daj ñu bari ñu ngi naan la Ousmane Sonko Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko mérité na lu ne ci àddina ndaxte lu mu am lu ne la mu daj moo ko may la mu daj sax jomaay mi daju ko mais njit sàkkul boppam suñu borom mooy sàkk njit loolu lépp nag bu amee war nañu fexe ba projet bi sénégalais sàmm ko xam ne bu échoué ñun ñëppay échoué te bis bu échegee kenn du fi gëmati nitu politique ci réew mi fii bis bu échegee homme politique kenn du ko gëmër ci réew mi parce que Macky mënuñu wax mu dañ Wade wax ñu mu dañ Diouf wax ñu mu dañ tey ñu ne jomaay mi ñu yaakaaroon ni mooy def rupture loolu tax rupture boobu bin faloo jubbanti na ko tax ñu ne rupture dans la continuité parce que nag boo nee rupture mooy da nga fiy jëlee li fi nekkoon yëpp te li fi nekkoon du lépp bon du lépp bon am na ñu baax am na ñu am njariñ am na ci ñoo xam ne fa ñu nekkoon di liggéey def nañ fa lu tax ñu war leen bàyyi fa ñu ne Omar Samba ba buñ ko waxee wax Mary Teuw Niane ak keneen tey jii ñee bu ñuy wax système ci leen bokk mais système du lépp a bon kon rupture boobu dans la continuité loolu lu baax la kon yem ci baatu rupture rek doyul waaye nan xool li dox te baax te mën a jëmale réew mi kanam ñu yokk ko xool nan lay gunge jomaay ak coalition mais nan lay gunge. ñi falu bees ci réew mi ndaxte nag transformation yombul ci nit maanaam def dix ans opposition ak opposition bi mu tar bu tar bi ñu def war a wëlbatiku nekk ci nekk ci njiitu réew di nga dem li waa doon wax alkaati du bàyyi dóore même bu même bu màggatee sax yan wi da koy téye mais ñii aussi tey seen opposition ni ñu ko doon dundee mu doon une opposition radicale bu ñëwee au pour ñu adapté wu au pouvoir day jafe. loolu tax Bassirou fay Faye Ousmane Sonko. bu nangu ku leen teg pression ay gaaw leen na gouvernement bi génn dafa war a génn tey dafa war a génn suba buñ ko nangu buñ ko nangu nan bañ xam na mbir mi du yëkkante walla gaawantu waaye xam fa nga jëm la ak boo fa eggee lan nga fay fekk cinq ans yi bariwul mais nan fi def ay réformes yoo xam ne jëm ci wàllu guerre bi ak corruption bi réforme des institutions justice bi li jëm ci dundu Sénégalais yi gën a oyof réduire le train de vie de l'État Sénégalais yi seen bopp ci nguur bu boobaa ñu ne gongo mais nag topp pression ñoo xam ne bun sañoon Diomaye mii du fallu bu ñu sañoon Ousmane Sonko du nekk premier ministre bu sañoon heure bi mi ngi ci ñi ngi ci kaso bi ñoo ñoo leen di teg pression naa leen noo gaaw leen li ngeen ñu waxoon ci gouvernement bi mais gouvernement bi texte ci internet lan waxee quinze heures mais est-ce que danoo gis la communi la communication di pale yónnee ay message presse bi bu dee danoo yónnee message presse bi presse ñan ñu ko wan quinze heures boobu ñuy wax du lu ñuy taf ci internet la communication du pale ñooy avertir la presse ne leen gouvernement mën na génn tey wala suba te man mënu man dama gëmoon ni démb du génn. te wax naa ko nit du génn pour yow nan la Diomaye di préparer un discours mu doon presque premier discours à la nation en tant que président de la République du Sénégal mu war a wax ak sénégalais war a gagner seen confiance sur Diomaye Faye war a nekk ci tànn ay ministre bëgg a def discours ci kanam Sénégal mënta ne le bisu 3 avril mënta ne loolu dax man bi mu génnul je me suis dit lii mënu woon ne parce que benn tat mënta war ñaari mbaam. mun woon ne buñ fi yàkkamti dara dañuy doog a falu defagun fi 72 heures tey lañ def 72 heures ci bopp réew mi tey tey ñaari fan ci kun dégg 5 ñu yàq fi fukki at ak ñaar ci réew mi fukki at ak ñaar li fi nguuru Macky Sall yàq ñu bëgg ko fàtte ñun bëgg ci ñaari fan ñu ne Diomaye defaral Sénégal avec les si billaahi nit mën na yëg ci asamaan si wàccaat xel moom mën na lu ne xalaat mën na lu ne mais jëf mooy nit di nga jëf ci nag danga koy waajal nit ku ne na nga def li nga mën na nga engagé loo mën parce que boo nee da ngay réduire la taille du la taille du gouvernement le nombre de ministres nga wàññi leen rationaliser te nga fekkoon fi ay cinquantaine de ministres ay conseil ay yu kenn xamul fekkoon fi ay agence léegi yow nga fexe bëgg a rationaliser. ministre yi ci nguur gu bees expérience bu njëkk ci pouvoir doo tey parce que le le premier gouvernement moo joxe les premières impressions ji nga tey ji bu turu ministre yi génnee rek di nga xam fan lañ jëm di nga xam fan lañ jëm di nga xam ñii lan mooy seen yéene parce que euh, Macky sàll bi muy jeexal nguuram mu ne gouvernement de combat et d'attaque rek ñëpp xamoon nañ de échec parce que jëm yi ngay teg xalaat yi ngay teg nit ñi. ñi ngay teg parce que Sénégal nag dafa xat lan doon wax ca ndar ndar dafa xat bu fu kenn jëwante bu fu kenn xasante ndaxte ñëpp a xamante Sénégal koo fi tànn xam nañ ko mu doon loolu tax tànneef googu nag mi Ousmane Sonko di jomaay na doon lu ñu waxtaanee ndaxte lu ñu lu na doon lu ñu waxtaanee ndaxte nanu ko def bu ne nag ko waxtaan moo ko jiitu léegi ci biir tànneef gi war nga def enquête de moralité xam nit ki mooy kan. enquete de personnalité baatu éthique éthique bi ñuy wax ak humilité ak rupture bi ñuy wax ñu gis ko ci nit ki ñuy fal parce que critères yi war a daje pour ñu tànn kilifa dafa war a leer ñu xool nag kii est-ce que musul sàcc alalu réew mi kii est-ce que musul triande waa réew mi kii est-ce que mosul dugg ci lii ak lii est-ce que musu fi wax lii ak lii il faut ñu gëstu nit ki doo ko tànn su dul loolu mën nga fi tànn koo xam ne impression bi muy jox sénégalais mooy ñii duñ dem kon tànneef gi lu ñu war a xool la loolu tax man bëgguma ñu yàkkamti ko mais ñu bañ ko teg rek ci CV ak diplôme baax na parce que information yi ma mujj a mooy CV ak diplôme la ñuy tànnee même boo xoolee aide de camp bi xool Mary Teuw Niane ak ñaan yooyu yëpp c'est bien yooyu yëpp c'est bien mais nanu xool tamit jaar-jaaru nit ki nit ki ginnaaw bi mu amee CV am am am mais lan ko jotee dénk nan la ko yore woon balaa ñu koy dénk leneen. loolu aussi dafa am solo te loolu ñoom Diomaye war nañ ko xool mais ñu bañ am complexe diplôme aussi parce que en 2004 li échecloo Idrissa Seck en tant que premier ministre mooy complexe diplôme paraît-il que Idrissa Seck dafa amoon complexe diplôme quoi te parce que dafa am ñu mel noonu alors que nan mel ne américains yi parce que ko diplôme ak complexe am c'est bien mais français yi lan ko jàngee mais le système américain mooy lan la nit ki mën nit mun na jàng ba ne ar am ay diplôme mais du compétent du am rigueur doo am organisation la Serigne Cheikh doon wax Serigne Cheikh nee na tubaab bi dàqu ñu jàng dàqu liggéey ñaar rek la ñu ëppale mooy rigueur ak organisation nee na nit ku ñuul daa xaw manqué yooyu xam na Serigne Cheikh macha allah te côté boobu war nañ ci xoolee mais war nañ xool aussi la dimension étique de l'homme parce que éthique du li ñuy jàng mais fan la juddoo fan la màggee fan la jaar jikko ji ngor gi jom ji ak diine ji nan ko xool. yooyu dafa baax ci nit parce que Diomaye aussi li Badio Camara wax diine bokk na ci li ko forcé ba mu doon ki mu doon mais nit ki ni nga mel est-ce que noonu la sa njaboot di mel patriote yi est-ce que ñëpp a baax est-ce que ñëpp a jub loolu it fokk ñu xoolaat ko nekkul ni rek nit dafa bokkoon ci combat bi dafa nekkoon ci projet bi rek ku baax la ku jub la parce que nag kilifa njabootam yàlla da ko ci nattu day am ay sarax da ci am ñoo xam ne tey jii. bu buñ jotee ci nguur li ni njëkk a xool mooy seddu seddu seenu ñoñ kon critères yi buñ ko teg ci kii nii rek ci combat bi la bokkoon ñoo far parce que rek taxaw fi naan ñëpp a jub projet bi ñu ko seq ñëpp jub lool moom ay waxi caaxaan la parce que tamit du ñëpp ñoo mel ni Ousmane Sonko du ñëpp ñoo mel ni Diomaye nit ki sañ nga ni nii laa mel mais nii la samay nit di mel xamoo ko kon. bu leen kenn yàkkamti du chroniqueur parce que nag noon du bëgg mu chroniqueur yi bari nañ ci ñu ñëwee ak journaliste yi bëgguñu Pastef bëgguñu jomaay buñ sañoon duñ egg ci nguur gi moo tax seen xol di dagg di dee ñu nag ñoo fi nekk di la teg ay pression ba tey ji gëmagun ñi gars yi président lan des fois damay dégg sax waaye euh, booy yi booy yi la leen di wooyee mais jomaay boo faloo ba nekk ci bopp réew mi yooyu da koy lijjanti parce que un président de la république nga koy respecté kenn du ko wooyee booy ñu kenn bu dee booy tey ñooy suñu président kon yooyu lijjanti la gëdd gin joxoon ji nga Macky Sall bi ko waa PDS yi fonto bi muy doog a falu ñoom ñëpp da leen leen lijjanti parce que waa PDS dañoo jàppoon Macky Sall ku tekkul dara mu lijjanti leen di nga Macky Sall diggante PDS bokk na ci li ko yàq mooy dafa falu du ma tudd ay tur mais lu nu yàqul Macky Sall daf amul ci àddina parce booy doog a nekk président daa am ñoo xam ne dañ lay jàppee comme naan bi nekkoon ci corniche bi. alors qu'un président de la République c'est une institution surtout ko président boo xam ni nee na ndombal tànk politique bi mu amoon ci parti di Pastef secrétaire général bàyyi na ko Sonko bàyyi na maire Ziguinchor loolu nag day dalal sama xel ci rupture bi parce que nag loolu la ñu diggoon loolu la ñu diggoon te tey jii yàlla dogal na ñoom ñi ngi ciy taxaw te loolu marque bu baax la parce que tamit li fi yàgg di am mooy jiite parti wala nga nekk président nekk ci parti du buur di bummi di xool sa intérêt parti looloo tax mesures yi jomaay ne da koy jël jëme ko ci wàllu politique ay mesures la yoo xam ne du yomb waaye nee na ay concertation moo koy lal concertation yooyu bokk na ci ñu fexe ba képp koo xam ne loolu moom ci promesse yi la bokkoon ci projet bi mooy ku am 18 ans rek dugg ci fichier électoral bi beneen bi mooy rationaliser les partis politique sànq maa ngi déglu ci émission Jomet assan Besseré il faut que ma explique la tuuti bu nee les partis politiques dañ leen war a wàññi rationaliser leen financer leen financement bi du xaalis bi leen jox ñu koy lekk boo dégloo ci discours Jomaay mooy financement bi mooy parti politique dafa war am formation école du parti mais dafa war am éducation les militants ñu éduquer leen xaalis du rek dañuy wàcc mbedd mi di ko séddale xaalis boobu da parti yi war di dund parce que boo xoolee le parti socialiste amoon na ko. mooy di former ay militants am école du parti Pastef am na ko ak Moustapha xaw ma nan mooy ci seen ki jiit seen école du parti yeneen parti nag loolu lañ war a am ñu xool état parti yi aussi tamit boo leen joxee financement financement boobu du xaalis bi ñuy lekk mais day am li ñu naan état financier at mu ne ñu dem xool compte bancaire partie bi day tax ay financement extérieur du jóge bitim réew ay lobby ñëw di financer ay partie mais day may tamit nguur gi at mu ne mu dem xool état finance boobu le parti pour xam parti boobu xaalisam fa lay jógee est-ce que xaalis bi fan la ko def est-ce mi ngi koy def fi nga ko war a def kon tey jii alal joon ñi wax ci financement parti politique ak rationalisation loolu lañ ci jublu mais alal ji duñ ko jël jox ko 300 parti mais il faut que ñu xool na la parti di doxee mais nag loolu lépp waxtaan moo koy jiitu lu loo xam ne nguur mu dafa mën a tëb def ko beneen bi ci topp bu am solo mooy ñu teg seni Diomaye wax na ko xam ne CENI musoon nañ ko proposer parce que seni il faut que ñu wax tey ji lan moo ñu yóbbu ci CENI Sénégal dadaan am élection ci diggante Wade Diouf mu jur ay problème li naan bourrage des urnes ak sàcc élection yo li woon léegi bi ñu ñëwee ba en 1998 ñu créé ONEL observatoire national des élections bi ñu ci ONEL ONEL boobu. après ci leen waxtaan bi Abdoulaye Wade ñëwee jël nguur gi xam ne ONEL moo organisé élection 2000 yi mais bi ONEL pare dañ ne nan organe bu autonome boo xam ne li jëm ci wàllu contrôle ak supervision élection yi dina ci am kàddu mooy Sénat en 2005 Sénat bi bi mu taxawee mu doon bi superviser ak contrôler élection mais Sénat mënul organiser élection le problème mooy loolu mais Diomaye na il faut ale plus loin moo ñu am organisation ñu am Sénat commission boo xam ne day commission nationale indépendante boo xam ne day moom boppam ci wàllu élection administration bi di ko tënk nguur di ko tënk xam na loolu CENI xamal la lay regle mooy li DGE def du ko mënati CENI li muy regle mooy direction des élections ak ministre de l'intérieur doole ji ñu am ci élection duñ ko mënati loolu nag bu dee ni am na coowal élection du amati mais daa am foo xam ne. fa laay daanelee jomaay ñëw fa te loolu waxtaan war nañ ci dikk mooy ñu dem ba am bulletin unique loolu aussi bu dee ni mën naa conseil jomaay dama koy conseil par que réew yi ñu wër nii yëpp bulletin unique la ñuy demee élection mais ñun ba léegi ay bulletin kayit yu dul jeex la demee élection alors que loolu démocratie adduna bi da ko weesu am na yeneen point mooy digitalisation administration yooyu yëpp ay mbir yu baax la mais il faut de la volonté politique parce que vouloir n'est pas loolu lay wax Diomaye ak euh, Sonko di leen ñaanal li ñu naal te am ci mébét yàlla na suñu borom may sago ak mën ak kàttan mën ko eggali sénégalais yi tamit jàppale leen ci mais aussi tamit di leen bàyyi xel di leen teg bët ci ni li ñu waxoon ci loolu lañu ñu war a ne bu boobaa ñun ñu fekk leen ci rek Sénégal jëm kanam tey jii mu doonoon 30 euh, minutes chrono di gërëm ñëpp di leen euh, ziar di leen ñaan une fet fête teg ci ci rupture yi am na lu may rafet lu Modou mooy jomaay bi mu ñëwee di def discours bi man daa am lu ma seetlu nit ñi wax ji lañ doon déglu mais ma déglu wax am lu may seetlu mooy de la nation ki sàll defoon marron beige delloowaat nañ ko vert jaune rouge loolu dafa am solo maanaam armoire yi de la nation bi ma Macky da ko soppi woon def ko couleur partem loolu tegu ko woon fenn jomaay changé na ko def ko vert jaune rouge parce que république bi amul couleur benn couleur la am mooy le vert le jaune et le rouge di ñaanal ñëpp jàmm Abdou Top El Hadji Modou Diouf euh, di ñaanal ñëpp jàmm Omar bun Xataab Gueye nekkoon ci kàddu gi beneen alxamis incha allah dinañ ci dellusiwaat ci beneen 30 minutes chrono jërë ngeen jëf.